dëkkaale ki nga xam ne moo di euh, bo ki nga xam ne moo di waa euh, euh, kii di Aziz la maintenant ban jàngat lañ ci lañ ci mën def est-ce qu'on peut évoquer wala peut-être que ray bi moo toll fenn fi d'ailleurs Bam fu seen ñaari famille dañ noppi seen ñaari famille dañu noppi quoi surtout son frère la voilà ñu ngi bëgg dee yéen ëllëg ngeen kii te dossier boo xam ne mu ngi si instruction instruction ñu ngi koy àtte dara leerlu si ñu ku ñëw jox leen micro tàll leen ñu commencé wax bu ko def affaire de business. surtout invité leen plateau. que boobu yàkkamtiwul woon siiw. non je sais pas quoi parce que man je comprends pas. que tiitul aussi. non boo tiitee da ngay noppi. mais comme ni ko Thioune waxee bu fekkoon ni ku wax ñu woo la. Mm. walaay ñun léegi ñëpp noppi. mais c'est parce que léegi laisser aller bi dafa bëri. parce que fan yi waale bi defoon nañ noonu. génn ne gëj nañ ko gis. xamuñu sax fan lay fréquenter mais loolu. di di génne ay ay vocal yu ko ko envoyé. pour lan à quel ci ban lan yow li nga war a wax foofu li nga war a wax ci ci mbedd bi demal nga wax ko ca juge ba demal justice wax ko fa pour man loolu moo doon clair parce que tey enquête yi téye nañ ko yow ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci xam lépp sax génn ñu wax comme ni ko Thioune waxee juge bi waxul procureur bi waxagul. ñu yore enquête bi waxuñu yow nga nekk tiim micro yee caméra yi rek nañ noppi te bu ñu jël deewu jàmbur yi di ko def affaire de business wala bëgg ci jaaree am ci weccit. c'est pas normal fond de commerce. voilà fond de commerce lañu ko bëgg a def quoi voilà le mot est là fond de commerce lañu bëgg a def affaire dund kii euh, dee bi nii te loolu nag rafetul mais euh, Bamb comme ni nga wax nii sànq soxna Fatou muy wax insécurité. Hmm. mais Bamb est-ce que seetlu nga ni ñi rey ñëpp dañ la jege. Hmm. maa ngi koy wax suñu bële. ñu ñu rey ñëpp ñi leen rey dañ jege. kii nijaayam moo ko li nga li nga wax léegi Pikine euh, jarbaatam moo ko bëggoon rey mhm. yëmbal nijaayam moo ko rey euh, Fatoumata xaw ma lan euh, chauffeur am moo ko rey Tamba bras droit wu papaam moo rey xale ba ki ñu rey Pikine kii moo ko rey nu mu tuddati collègue am moo ko rey mhm. kon ñooñu ñëpp xam nga foofu moom problème mu insécurité amul foofu insécurité mooy fu la agresseur di fekk mhm. nga toog mu ñëw agressé la rey la comme li xewoon ca pont Sénégal euh, pont Sénégal 92. 92 booy waaw fekk waa ji muy ànd ak soxnaam nga ñëw ray ko loolu mooy insécurité. waaye euh, Bamba euh, noonu ñun lu ñu mën a wax rek mu encore ñëwaat na rek sujet bi ñëwaat na. oui valeurs yi suñu valeur yi la ñu perte. on parle de 16 morts déjà ci 2 mois yi 16. valeurs yi moo dem Bamba nee naa la léegi nit ñi dañuy fooyee violence léegi violence ngóor la ci mbir réew ma maa rey diw dem nañ sax ba waykat. taxaw way ne man maa rey diw maa rey diw maa def crime bi maa def crime bi man dañ ko waroon jàpp def ko ba def ko way quoi way assumer quoi ne man maa rey diw te dara fekk ko ci ah. parce que là y avait y justice boo xamante ni moom laa la wax oui on voit les yi dem di ko côtoyer mais demoon ah, sax ba dem jël sax ne diw moo ma jox arme hmm. ministre diw moo ma jox arme demaat ba génnee seen biñ sax menacer le peuple jox leen ay gilet de pour ñu tas ay affaire ba ba mujj sax léegi loolu mu mujj kopp mu jàmm nit si lañ ko jàppee nii. donc maanaam dañu dem ba nga xamante ni dañoo dañoo jël euh, mentalité yi changé ko maanaam mentalité yi dem ba changé mu nekk ngóor maanaam violence verbale bi ci verbal la commencé. diw di dinaa ko rey wala yow su ma la téyee dinaa la def nii da ngay gis sax signature contrat yi damay gis benn mbër taxaw naan la kii su ma ko jàppee dama koy rey wala ci ci arène bi laa koy suulee déggoon naa fi ay mbër taxaw ne non bu ñuy bëree la indi te te ñooñu ay mbër yu. yu mag lañu taxaw ne dañu indi corbillard. ay ay député tamit. voilà da ngeen ko lekk moom mu ne. voilà dama koy firir journée maa ngi ko joxe exemple fii. Ah. donc bamb eh, maanaam tey ñi ñi war a joxe exemple. Mm-hmm. ñoo dem ba nga xamante ni démissionné nañu. ci kër ngay maanaam. kër cest xaw a. violent waaw moom dinañ ñëw ci li ñu li ñu war a teg. mais nag tey insécurité mi ngi commencé ci sa biir kër. fekk nga yaay di saaga juddu nga fekk yaay di saaga juddu fekk papa di saaga mag di saaga ñëpp di saaga nga fekk mag bu fa nekk maanaam moom mi ngi jaay ne man agresseur laa woon wala jamoon naa diw wala rayoon naa diw defoon naa crime nii léegi xale bi loolu di nekk ci boppam mu koy màggaale day yaakaar ni loolu c'est dëgg la daf ko war a def nekk tam ci société sama yaay ne la yow sa moroom li mu am mënoo fexe ba am ko ñàkk nga jom loolu mm-hmm. mais soo demee wuti ji boo amul tu es obligé ay boo amul xel dëgg tu es obligé nga dugg ci yenn bases yi ci yenn yëfu dof yi nii. pression sociale. parce que waaw parce que animosité bi moo dem ba installé wu ci esprit yenn sénégalais yi. li li mala yi di def maanaam ci seen biir. Mhm. di lekkante di rayante di gis sa moromu mala nga ray ko rëbb ko léegi loolu la ji loolu la nit ñi léegi di def maanaam ñàkkatuñu doylu doylu la bamba doylu dafa bokk ci société bi dañuy dem maanaam la dama bëgg tekki mais tekki bi léegi nu ma ko amee baax na ba am na benn langage bi naan la xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti. mais looy lijjanti saa yi looy lijjanti mën nga ko noo ko laqartee baax na. Mhm. noo ko amee baax na moo tax nit ñi di di dundee alalu njirim. ñii di ay doomu aadama ñii di sacrifier ay ay doomu aadama da ngeen ci sëriñ sax sëriñ mu ne la diw bi day dafa war a génn àdduna pour pour maanaam nga yow nga mën a am il faut nga sacrifier diw mais baax na boobu noonu léegi kañ baax est-ce loolu état mën na ci dara parce que yow le le temps ngay dem di posone nit ba muy dee sax. ba parce que parce que léegi dem nañ sax ba Sénégalais yi léegi wóolatuñu si seen biir su ma demee kër Bamba su ma joxee ma lekk sax du bëgg lekk. <laughs> Ah, si. parce que dem na ba nga xam ne ni ñun sax ñu ngi ragalante suñu biir. parce ñii la ñii la euh, boo xoolee ni crime yu am noonu ñii la gën a jege ñoo la ko def maanaam koo ci yeewoon tey laaj ko sa tur ki la mu tuddalu turam de A tey nag ñun ñoo war a conscientiser waat il faut que woowaat parents yi ñu yaraat njaboot yi bu même bu ñu demee sax ñoom ba démissionné na foofu nag la ñuy woowee gouvernement pour mu jël ay. mesure waaye ay sanction lenn rek la bàmba mm-hmm. wax naa ko waxati ko mooy sanction bu tar bàmba sanction tant nga amagul <laughs> yi du jeex de saa yoo xëyee dégâts bi nañ yaa ngi nii dégâts Pikine journée bi ma leen di wax yow wàllum sanction bi mm. c'est parce que am na ñoo xamante ni te boo ko xoolee yëmbal ki ñu rayoon man dama ci jàngat booy bi gaa yi koy saaga naan xolo xale bi li mu wax lu ñaaw la lu kii booy bi bi ñu ko laajee xam lu mu wax dañ ne ko seen xarit suñu xarit bi ku baax la ko rey man jour bi ñu ko reyee damaa jël cours pour dem fekk ko pour rey ko. cour waaw jàngi loolu ni ñuy reyee quoi. non moom nee dafa bëggoon dem fayu ji. fayu ji quoi way faire justice soi même. waaw dafa bëggoon def justice soi pour moom parce que nee na. vengeance quoi parce que nee na xam lu mu jàpp ku ñu jàpp yóbbu prison rey noppalu rek. donc loolu mi ngi commencé installé wu encore tamit ci Sénégalais yi maanaam mu ngi dem ba nga xamante ni Sénégalais yi sax ñu ngi bëgg di fajal seen bopp moo xew moo xew ñu jàpp nit mu rey nit ñu jàpp ko tamit taal ko. kaw rek am na ku ñu fa non mais loolu waroo gis-gis la. fa laa jëm maanaam nguur gu waroo gis-gis ak askanam. waaw foofu laa jëm askanu Sénégal li mu gëm. waaw société bi. li ngay wax li wax rey dañ la war a rey. waaw non li ngay wax foofu laa jëm. ñoom ñu ñëw andil ñu neen ñu pen de mort nañ ko fi jëlee. waaw loolu laa bëgg a wax nii. waaw ma ni même sax bu ñu demee ba naan nekkuñu ci euh, république islamique ba loolu la may tegal à chaque fois. charia quoi waaw nekkuñu ci charia wala dara. non pas parce que nekkoo charia. waaw États-Unis duñ charia. ma ne ko ma ne ko même même sax bu ñu deful même bu ñu demee ba ne ok defuñu ku rey ñu rey la mais na sanction bi tar mënuñ la teg ci kaso bi nga génn vingt ans après nga génn. dañ la war a yóbbu soixante-dix ans. wala ñu wala ñu gracier la. voilà wala ñu gracier la. wala nga am bravo sax dañ lay dundal. voilà dañ la war a rey. xoolal xamee ne yaa ko tey dañ la war a rey. jox naa ko exemple Sarr. ki rey taxi taximan bi ca Shell. Ah. gis naa dégg naa dafa dugal kii pour ñu bàyyi mu génn ndax euh, bonne conduite. bien sûr parce que dañ ko sóoraale. waaw loolu loolu li mu wax loi moo ko. waaw léegi nag bind na léegi moom la toog nii di xaar gaa yi càmbar ndax bu amee bonne conduite mun nañ ko takkal bracelet mu génn yow maanaam ki nga rey jeex na après euh, Bamba tamit il vient ma parler droit de l'homme loolu laay bañ a dégg yow nga rey. l'homme ba pare ñoom am droit de l'homme. ah droit de l'homme aussi ce sont là le monde aussi. mais Bamba ki nga mais loolu loolu c'est la droit de l'homme. weesu yàlla yàlla mi la sàkk yow ne la man maa yow laa gën a fonk ci doo ci li ma bind ci kaw suuf. Mhm. yow ngay nit mu jox la xel mu ne la boo buñ la rey boo reyee dañ la rey ko kooku kan moo ko kon kan moo ko gën a fort ak droit de l'homme euh, ñoo xam ne est-ce que droit de l'homme ni moom dama ne mënoo ñëw jël peine de mort leneen aussi nga bëgg a jël euh, est-ce que droit de l'homme laa wax moo gën a fort droit de Dieu bi yàlla li yàlla sàkk ne def leen ko ah non non gënu ko fort est ko fort waaw léegi nag nga yomb di moo tegal naan droit de l'homme naan ma ay non dañ sóoraale luy loolu lu ñu sóoraale yëpp moom bi muy rey est-ce que sóoraale na. non mais mais am texte dafa leen di ko dugal ci affaire diine amoon na Sénégal te compté am États-Unis ngi mel ni Ousmane Sonko wax démb ne kaawu Palestine ak yooyu ce n'est rien bu ñu ko gars yi di teg question wala ethnie parce que Afrique du Sud bi ko défendre bañ ci waaye am gain de cause mm-hmm. deux la am de musulman ci ci ci dëkkam dafa am yoo xam ne naafeq yi saa yi ñu bëggee làqat ku ko déggee ngay sëriñ ngay chroniqueur ngay nangam ngay journaliste ab naafeq laa la jàpp maa la ko wax moom laa ko jox exemple gis nga doomu aadama mm. surtout nag ñun ñuy sénégalais yi bu ñu dañ koy tàmm di ko def moom laa la wax ci dossier bi nii ku nekk yor sa euh, kii di jaay garaaw ni maa gën a xam wala maa di ko wax bu fekkoon ni gars yi dañ dañuy sanctionné kon nga dégg ñëpp noppi teg seen gémmiñ boo ciy wax dëgg la nag bu dossier amee comme tey cuun nga ñëw analyser ni lii moo ci war a mën a xew lii moo ci war a mën a xew mais ñëw di affirmer léeg-léeg léegi les sénégalais dañuy affirmer sax ba ba dugal doomu jàmbur instant bi nag bu ñu demee ba xam ni. dëkk bi teg nañu ay loi yu wóor ku rey dinañ la rey wala ku rey dinañ la tëj cent ans tey imagine ñu ne loi bi tey nee na ku rey dañ la teg cent ans. mais ngir kay moo gën a kii. li nga xam ne mais moo la cent bi wax na loolu kay. perpétuité loi wax na ko créé woon naa la ko fi nga nii ngeen di ma confirmer cela. mais perpétuité ñaata la. dama ne ko perpétuité vingt ans la. non non vingt cinq ans. non non non au delà perpète mooy doo mas a génn. doo mas a génn waaw vingt ans. waaw fii am na fi am na fi kan la. ba danañ la tëj perpète. chambre criminelle non non déedéet xaaral xaaral déedéet. la la fee ba fa bëri vingt ans lañ ko kii lañ ko tëj. waaw léegi ab war ah, taxaw na fii. def naa def naa crime bi def naa crime bi def naa. élément élément foofu jox ko loolu de ah? non non perpète. waaw dafa concerner ay délits ay ay infractions yu précises. par exemple assassinat. par exemple ku ñu tëj pour viol. waaw ñu la tëj perpète. ku ñu tëj pour meurtre. mooy lu tëj perpète. mais ku ñu tëj pour assassinat. waaw léegi nag est-ce que gis nga koo xam ne dañ koo tëj. pour assassinat taxawaal gis nga ans la ñu leen tëj ñu génn. waaw loolu la yoon wax. a dindi nag dindi dama la rey dama rey te tey ko saa waay dama tëj 100 ans non ki rey tey dafa assassiné. dafa am ñaar non mm-hmm. xam nga dafa am ñaar aussi yow rey yëpp rey la ta ngay xeexal nit rey ko ngay xeexal nit rey ko bokkut ak dafa di dem ah. ko ko ko dafa warul ci ci ab ñaari choix non non ça dépend ça dépend di nga xeex ak moom non non ça fii di xeex xaaratu suñ dajewoon fii di xeex ma di la dóor ñuy dóor ma fi jaawale ko waaye du bokk waaw assassiné ma la moomu ma la dama laa rey waaw bu non non non bokkul de. bokkul ak ñu xeex ba pare nga dem sa kër ma waajee sama kër. waaw mm-hmm. ba yegg si fekk la sa kër wala ma. wala ma fii rek non wax non sax bokkul. mais tey dañ xeex sax xeex dama ne la xeex yow maa bu ñu xeexoon nii tey. Ah. bu ñu demee police dañuy atte dañuy dañuy daan ci kaso bi xeex sax moo warul benn. waaw non non d'accord léegi bu amee ba rey di ci am non non doomu aadama xeex faaw nga xeex élément élément waaw nga daal saa s'il vous plaît bàyyi ko mu terminer nga jeexal loolu loolu loolu yoon bi wax yoon bi nee na ki ki la dóor demal nga porter ko waxu la nga yow yow nga fajal sa bopp. Mhm. foofu laay waxee moo tax ma na ay rey ah, yoo ni sànq lim ko sànq lim ah. di traversé ko. loolu involontaire la involontaire la laa la wax. mën naa nekk volontaire te du nekk assassinat. loolu laa la wax nag nit tamit mën nga jóg da nga warul ah, jóg dañ ko accusé moom moo rey ak Ndiaga Diouf. non mais dafay leeral. justice moo wax loolu na Bassirou Ndiaye moo moo tiré sur Ndiaga Diouf. non dafa ne tiré na mais balam rayul. ku bu ne surgé ne non non dafa ndànk. ku waaw ku non non. déedéet bi ku mortel et blessure. non ku mortel mooy lan. waaw loolu mooy ray ray waaw loolu ray la ray la loolu ray la. non ray la ku rey léegi est-ce que ah, légitime défense la wala légitime défense. loolu mooy défense bi cuun yow. non non dossier bi nekkatu pendant la justice viré nañ ko. coup mortel dafa am waaw waaw mais nga daal ko parce que ça aussi daa war a wax. oui lan ku rey ñaata lañ ko war a tëj. ku waaw kon rey am na parce que homicide volontaire. ak homicide waaw rey involontaire nga ñëw mbëkk. ah man xaw ma de man <laughs> définition laa la wax. dama ne non bi muy téere def ci jublu téere pour rey. dossier boobu c'est un dossier. s'il vous plaît eh, ah, man xaw ma dama la ne. mais dama ne la. li juge moo ko wax li juge wax. li wax wax leer na. dama ne balam rayul. li bal bi génn. ah si loolu la génne. kon lan lañ ko si. wala d'accord léegi lan lañ ko doon def nga daan dégg bu njëkk léegi waaw ah, d'accord léegi waaw waaw léegi Diddo waaw d'accord léegi Diddo léegi waaw léegi lañ ko condamné il est condamné pour quoi <laughs> il est condamné pour quoi non il est condamné pour lan kon ku rey nit mën na tëdd six mois dama la wax c'est grave dans un pays ok c'est bon c'est bon six mois mais waaw mais moo tax moo tax may la c'est grave s'il vous plaît waaw bàyyi ko mu tëj waaw am na leer affaire c'est grave parce que gars yi fi mu li muy wax jaxasoo la kenn bindu ci ay légitime défense kenn bindu ci loolu. waaw c'est bon loolu la léegi léegi léegi dossier boo xamante ni. waaw pour éliminer un. waaw waaw d'accord waaw léegi supposé parce que dama ne la dama ne la tey. mais dama ju def benn la benn la du débat benn xam nga dootu débat. mënoo dem ci ab institution ba dee fa ñu naan la c'est que cest naa fekk moo bëri ci Sénégal. institution mais nag mais nag non non non ba beneen débat la s'il vous plaît bàyyi ko Sané après ñu ñëw ci ci éclaircissement yi parce que jël bal ñu ne la. voilà déedéet waruñu laa tirer bal. saaga ba Bassirou la ñu élément élément boo ko engagé dañ lay jàpp rek. boo ko engagé bal ngay jël. déedéet déedéet déedéet engagé Amassane. Amassane nga xool. ah non non non am ngeen nga ay xeer la mais ay gars yi ñëw gaare ay ay ay gros bras ay xeer di ñëw ci ci institution bi nga ne nga ne ma loolu élément élément s'il vous plaît élément élément mu ngi mel ni li taxaw yow élément s'il vous plaît waaw ñu daal ñu daal ñu daal ñu daal yow laa wax yow boo génnoon fii yor sa scooter nga romb ay nit di la sànni xeer boo yoree arme nooy def ba d'accord xam nga da nga ne demal attaqué palais xam nga man wax bi dama koy bëgg a. xam nga lu ma wutee ak yow. non non institution institution la ñu fekk Barthélémy Dias ba léegi. demul fenn dafa toog institution ñu fekk ko fa attaqué ko. donc loolu du dossier bi voilà bàyyi ko mu daal s'il nga jël kàddu waaw bàyyi ko mu solo. loolu noonu gars yi saa yu ñu waxee ñun ñu bëgg a. génn non non non non kii daf lay leeral daf lay leeral oui kii daf leeral oui. 16 meurtres yi am fii tey. ñu war a xool naka la ñu a a jëlee ay ba jëlee ko fi. dama ne la suñu police nañu renforcer yokk leen doole munoo woo police mu la aw ma essence munoo woo police mu naan la sama oto daa paan wala ngay woote intervention doo gis kenn tant que amoo bras long duñ doo doo doo. jërëjëf ñëw pour intervenir. c'est bon nga gis ci ab koñ ay doom ay booy di fa màgg di di di di jëfandikoo ci wàllum délinquance ñu taxaw fa di leen di leen euh, di leen aar parce que xam naa diw doomu diw la wala ci sama dëkkandoo la nit da ngay boole.